ana bawol bawol ya jóg leen taxaw seen doom jàngoo a ah, mbokk yi Assane Ndiaye àndandoog bawol production mooy organiser un grand combat de lutte ca arène nationale samedi 11 février 2023 askan wi yëpp doon laaj lamb bi ñëpp doon xaar bébé xale bi dëkk Médina soppee Médina yaakaaru ndakaaru ki indil ndakaaru drapeau chef de l'État mooy jàkkaarloo ak Gakou 2 doomu géejawaay a ah, damani ni waa géejawaay seen doom jàngoog avenir u xaritu Balagay Balagay Nekomale ne ko lay koko sës rek ci mom production jël Besbi bi Tout ko Bamba Fall Meru Medina soppé njiitu son excellence monsieur Macky Sall le 11 février du yomb ndax li la amateur yi don xaar té la production def a Bawol production sa taxaway rafet na Assane Baol ne bi Bawol Bawol bu bi le king des promoteurs indil na cinq combats 5 combats yu saf saf si ay You yu tolloo am Super Jamono ak Boy Sey 2 kooku drapeau Pape Mbaye étincelle couture moom lañ sargal ah kooku sama doomu ndey la Boy jaxaw écurie ak bay Junior Yakaru caaro yi di ci sargal doomu ndeyam Jibril Fall Leena Couture Boy Ndakaaru borom Grand Dakar ak ñaari tali yaakaaru ñaari tali ak xale tëngeej bi ñu Ronaldinho xale bi nga xam ni su jolof